mbokki ñëween démb salaamaaleykum dellu naa ci néegu ngor parce que ngoro ngi ci podium africain xam nga euh, actualité bi dafay toll fu nga xamee ni ka ca nekk mooy woo presse bi dema ñu fekki ngor parce que daf ñu neex dañu fekki ngor parce que dafa nekk ci actualité parce que bu demee ba ngor nekk ci Coupe d'Afrique ngor se fait tout seul loolu moo waral émission bi ma ni duggaat naa tey jii ci néegu ngor mais su may duggaat ci néegu ngor damay jël fu sore tey xale yi ñoo nekk Coupe d'Afrique mais attention seeni maam ñoo jëkk dugal ngor ci néegu excellence ngor cosaan la de olympique de ngor cosaan la olympique de ngor au milieu des années 50 l'équipe déjà la Coupe du Sénégal a tey jii plus de cinquante ans plus de cinquante ans donc il y eu plus de cinquante finales de Coupe du Sénégal dès la troisième finale de Coupe du Sénégal Olympique de Ngor dafa aligné en finale dañ dem indépendance en 60 61 muy la première finale de Coupe du Sénégal ñaari équipe jóge Ndar def ko Espoir de Saint-Louis Saint-Louisienne tey ñoo di Linguère finale ba ca topp Jeanne d'Arc aligné ci ak foyer de Casamance li nga xam ni tey jii moo du Casa Sport nous sommes en 1962 et en 1963 Olympique de Ngor mook Union sportive du Dakar Niger ñoo inauguré stade bi ñuy wax tey Demba Diop mu tudd à l'époque stade de l'amitié parce que dañ fa tëgg les Jeux de l'amitié en 1963 ñaar rek la Jeux de l'amitié 61 Abidjan 63 Dakar loolu moo indoon turu Jeux de l'amitié stade bi tudd stade de l'amitié olympique de Ngor inauguré que en finale moom union sportive du Dakar Niger euh, dama ci insister parce que léeg-léeg gars yi dañuy jël victoire bu USDN jox ko raay non bi USDN di bi Thiès di finale en 1963 du woon US raay USDN la parce que su ngeen jëlee victoire n jox ko raay dafa mel ne ko waa USDN defuñu dara tey boo demee ci dara ndamal espoir de Saint-Louis du ndamal Linguère ndamal Saint-Louisienne du ndamal Linguère sinon ña jógee espoir ak Saint-Louisienne defuñu dara moo tax ma insister ci union sportive du Dakar Niger at moomu nag le Olympique de Ngor ak union sportive Dakar Niger inauguré stade bi tuddoon stade de l'amitié tey jii di Demba Diop kon Ngor bii nekk tey ji Coupe d'Afrique xale yi seeni maam ñoo leen jiitu ci néegu excellence loolu moo waral tey jii teewaayu Badara Ndiaye bii ci plateau bi en 1963 Union sportive du Dakar Niger ba Olympique de Ngor en finale de Coupe du Sénégal 3 à Ngor a mené 2 à 0 Badara Ndiaye bii moo dugal la deuxième but de Ngor booba xale yu tuuti lañ de benn rajo fi am benn journal la fi am benn rajo boobu ñu cee dégg Alassane Ndiaye alu ak Ahmed Bachir Kounta ak Laye Niang mais comme nous étions passionnés de football loolu ba léegi daf ñu habité may dalal Badara Ndiaye lii nga xamee ni tey jii moo toog ci plateau bi Badara ma bàyyi leen nga nuyu mbokki Ngor Wakaam ak Yoff parce que benn njaboot la xale yi xam yéenay ñan ñu sóobu ci waxtaan wi nga xam ne tey jii Olympique de Ngor. mi nekk Coupe d'Afrique moo ko sooke. asalaamaaleykum waa plateau bi maa ngi nuyu waa Ngor. bu ma ne Ngor Wakaam Yoof yëpp benn la. Mhm. bu ma ci commencé ci loolu actualité bii nga xam ne moom nga ma invité tey jii. Mhm. barke démb rek bi ñuy dem finaal ak Pikine mhm. mën naa wax ne teraanga ji ci ëpp ñu jot ko waa Wakaam a ko indi. ce que waa Wakaam ñoo leen gunge. waaw ñoo ñu gunge ci finaal bi. rafet na. muy magi Wakaam. Mhm. di xale yi mhm. di waa Wakaam ñëpp. bu ñu ci tegee loolu waa Yoff ñëw. donc ñun waa Ngor. tuuti la indi. wax nga dëgg. kon nag Ngor Wakaam Yoof benn la. benn njaboot la. wax nga dëgg Ndiaye. barke démb rek moo ci mujj bi ñuy préparé pour dem Cameroun. Mhm. waa Wakaam kenn jiitu leen fa. est kenn jiitu leen man mi wax ak yow mën naa wax na ci ñetti dëkk yëpp laa dëkk. est-ce que. Wakaam laa juddoo. Mhm. sama yaay waa Wakaam la. Mhm. wokaam laa jànge uh-huh. ñëw ngor fekk fi sama papa. Uh-huh. nekk waa ngor uh-huh. sama première jabar maa ngi ko takk yoof est-ce kon nag buñ na ngor wakaam yoof benn la benn la kon nag foofu lay commencé di leen gërëm nga dëgg waaw te diggante ngor wakaam dara xaju fi te dara waru fay xaj wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg Ndiaye. ñun nag loolu dañ koy sàmm dañ ko sàmm démb. wax nga dëgg. ma bëgg a ci xale yi nga xam ne fi mu nekk ñoo si toll. Uh-huh. ñuy jiital loolu. wax nga dëgg Ndiaye. parce que sport moo mel noonu. moo mel noonu Ndiaye. waaw sport moo tëdd noonu. moo tëdd noonu kay Ndiaye. kon gaa ñi mi ngi nii Badara Ndiaye. l'avant-centre de Ngor. 1963 troisième finale de coupe Sénégal te jii y a plus de 50. gis ngeen que de ni mel que ba léegi junior ni ñu mel que léegi ku ko jox maillot ak godaas mu football Badara Ndiaye un des buteurs de la finale de 1963 euh, comme dañuy waxtaane góor Badara damay dellu si finale 1963 boobu bi ngeen di finale fu fan ngeen jaar ba ñëw parce que à l'époque da ngeen bette bi ngeen di finale 63 ban ban division ngeen nekkoon. deuxième division ah tu vois. deuxième division. est-ce que du ngeen est-ce que yéen yéenay la première équipe de deuxième division. deuxième division. bu final coupe du Sénégal. par la suite la Wakaam ñëw ak Saltigué. wax nga dëgg ak Pikine mais yéen yéenay première équipe. ñooy la première équipe. bu jógee deuxième division. dem en final fu ngeen jaar en 63. Euh, premier match bi ñu def. Ah. ñaari équipe yi Dakar lañu boole yóbbu leen Saint-Louis. muy olympique de Ngor. ak équipe bu séeréer yi ñu di ko wax. Euh, union sportive Petite Côte. union sportive Petite Côte. USPC. USPC may souligner foofu rek ci xale yi. Ah. na dafa nekk muy weeru koor. est xam nga loolu Badara histoire la dakaar ni mu bare terrain. Mhm. ñu jël ñaari équipe bu Ligue Dakar en coupe du Sénégal yóbbu leen Ndar. yóbbu ñu Ndar indi loolu. dafa mel na que dañ doon daw incident. programmation bi. man dafa mel ne que pour man. Ah. dañ de dañuy yóbbu match bi fu sore pour dawale supporters yi incident. waa xam nga euh, ñun lébu. Ah. temps en temps neexul wax parce que dañu am casquette. loolu la loolu la euh, dañu dañu baree xatar. dañu bañoon supporters yi ah. fekk leen ci match bi. waaw mais bare ñu xatar dañuy bañ rek ñu yàpp <laughs> donc premier match bi sax man footballu ma. ah d'accord. parce que booba élève laa. Mhm. donc euh, sama calendrier njàng permettre ma woon man ma dem premier match bi. wax nga dëgg Ndiaye ci la ñu éliminé euh, Petite Côte 3-1. USPC A5 USPC waaw. deuxième tour nag la ñu boole ak GIA. GIA Dakar GIA de Dakar. boobu GIA bari na doole. ah passé na bari doole. booba ñoom Moustapha Dieng. Domingo. Domingo. Ale Dior. Ale Dior. Ale Dior Gueye. waaw na sa am na sa ñoom suuri am na sama grand frère boo xam ne. ak Lamine Ndiaye. Eh, sama grand frère boo xam ne Yéli liggéey waaw Yéli. c'est un grand frère. bu gendarme bu gendarme. moo doon def militaire mook Adrien Lopi. kon nag waaw ak am la. Adrien Lopi ak Yéli Gueye. kon nag mu ñu fekk leen fa dóor leen 1-0. à Saint-Louis. déedéet à Dakar à Dakar Jeanne d'Arc Dakar deuxième tour ñu boole ñu ax Guetté. troisième tour léegi. troisième tour waaw USPC Jeanne d'Arc ak Guetté. troisième tour ñu boole ñu ax Guetté te booba Guetté moo nekk premier. ñoom Nara Blacky. waaw Cheikh ma di waaw Kolo. waaw Marche. ñoo nekk premier. ak jafe Guetté boobu. waaw toujours même stade bi. ñoom Mbengue ak Ismaïla. waaw Doute mu ngi noonu. mais ñun booba. Ah. Euh, mën na wax ne sax presque amuñu entraîneur. est-ce que. parcours bi ñu def yëpp amuñu entraîneur. discipline bi doyoon na. waaw ah, su suñu mag ñi nga xam ne ku mel ni dem si yàlla ji ñoom Babacar Gueye. way ñooy jiite séance d'entraînement yi. waaw uh-huh. uh-huh. ah, bu ñu entraîné bu samedi bu ñuy football dimanche. suñu mag yooyu nga xam ne moom ngeen gis ko mel ni dem si yàlla ji dun sàmb ñoom hmm. dun mbeng ñoom idda mbeng et cetera et cetera waaw ñooñu ñooy réunion ñun ñu ñëw ñu def classement bi est-ce que ñu ne diw diw diw diw ñoo ñooñu classe bu ñu defee classement bi bu pare am na beneen commité de vigilance waaw boo xam ne guddi gi hmm. mooy topp mbedd yi di seet ñu ñi nga xam ne dañu classé koo xam ne à partir de dix heures onze heures tëddu la ñu déclassé na. ku ku nekk ci mbedd mi. waaw 10 ci guddi. waaw ëllëg doo joué. doo bu ñu classé bu pare. Mhm. bu ñëpp xam na ne lii classement bi la. y' a un de comité de vigilance. boo xam ne ñooy yor mbedd ngor yi. di xool équipe bi ñi nga xam ne classé nañ leen. koo xam ne à partir de 10 heures 11 heure gis nañ la si mbedd bi le lendemain doo doo jouer parce que discipline baa ngoog discipline librement consentie alors euh, ngeen éliminer USPC Jeanne d'Arc Guété Guété match su Guété nag euh, dafa am lu tuuti rek lu ma ciy fàttala ko mooy bi ñëwee ba def commencé def mise en terrain booba sama encadreur dem si yàlla ji dun sàmm dun sàmm dun dun sàmm dun sàmm moo doon ménage bi. mooy ménage bi dama ko xëcc bu mu am diimet ma ne ko monsieur monsieur parce que c'était un enseignant. waaw ma ne ko waaw monsieur nan ñan la ñuy footballal mu ne ma ñii ma na ko ñan ñii football bu pare booba gerte. mise en terrain seen mayo boo ko dindee boo ko defee nii muy ndoxu kese. ci mise en terrain rek ci mise en terrain rek. football ba pare. tout football bu pare. dañu bare woon doole gerte. ils étaient premiers. waaw ñu ne woon premier. période boobu oui oui. monsieur ñu def mise en terrain def présentation bu pare bi ñuy dugg ci terrain bi mu xëccaat ma moom dun hmm. na ma waaw bata li nga ma doon laaj foo si tollu ma ne ah du ñii nga ñu dag na ñii la ñuy football mun a mun a ah monsieur ni ma def jaar rek laay def nii. <laughs> ñaata ngeen leen gagné. 2-0. à Dakar à Dakar. daal di ñëw final léegi. daal di ñëw final. final ak US Dakar Niger. Euh, Niger Union sportive du Dakar Niger. Niger. ancêtre US Rail. waaw ngeen départ mën na leen deuxième. voilà yow yaa dugal deuxième bi. maa dugal deuxième bi premier but bi. Ah. suñu benn mag boo xam ne aussi moom aussi enseignant la te dafa jiitu ñu di ko wax du sàmba dee ko Deko. Samba ko il a fait Kaolack. il a fait Kaolack il a fait Mbour. Samba Dekko il a fait Kaolack gaañu na daaw. waaw donc moom. Mhm. ci ni ma koy waxee. Mhm. ñoo nekkoon suñuy mag. waaw en même temps nekk suñuy entraîneur parce que ñoo ñu ëppoon évolution ñoo ñu daa entraîner en même temps di football. Samba Dekko Samba ko gisul dégg nga ko. waaw moom it mën a 2-0. ñoo mën a 2-0. waaw. Eh, match comme ni ñu koy waxee rek. ku ci nekk da nga koy interpréter. da ngeen teel sóoratu. waaw da ngeen man man mii di wax à l'heure actuelle. Ah. football naa ba sama carrière jeex kenn mënuma ma ma arbitre ma suma génn. kon équipe baa ngi nii. équipe bi la Badara Ndiaye di waxtaane nous sommes en 1963 mu nekk la troisième finale de coupe du Sénégal olympique de Ngor bii ngeen janool nekk la première équipe de deuxième division bu ñëw finale coupe du Sénégal suñu invité bi moo nekk nii ci ñi jonkon ci digg bi moom ngeen janool gis ngeen ko tout à l'heure en médaillon moom ngeen janool di Badara Ndiaye keroog ci final bi moo dugal le deuxième but de Ngor parce que Ngor a mené 2-0 devant Union Sportive Dakar Niger mais fàttale ni waa Union Sportive Dakar Niger waa Thiès lañu tey jii ñoo di US euh, Rail bi ñu demee fusion US Dakar Niger lañu ñu tuddoon danaa ci dellu si euh, tout ci boobu euh, final donc Badara Ndiaye moo nekk nii ci digg bi. ma demaat à ba tey ci seen gauche euh, ki jonko noonu à moo di euh, euh, Samb Deco moom la Badara Ndiaye wax ni il faisait office d'entraîneur joueur Samb Deco parce que seen doyen la woon après Samb Deco boo jege see kii ci wetu Samb Deco di mbay Ndiaye après mbay Ndiaye di Badara Ndiaye mi nga xam ni tey jii moo nekk ci plateau bi. ci gauche Badara Ndiaye Badou Gueye Dout Samb moo teg ni mais bi ci suuf nekkoon un des attaquants nekkoon très très très véloce léegi ñu yéeg ci kaw à partir de votre gauche Doun Samb moo nekk noonu c'était un encadreur qui faisait office de manager ci wetu Doun Samb di Séga Diaw Séga Diaw ñëw na fii ñëwoon démb keroog bi Ngor di wàcc finale Coupe du Sénégal euh, Seck Boy moo nekk noonu ci wetu Séga Diaw gannaaw Seck Boy di Assane Bakhoum après Assane Bakhoum di Djibril ndooy jibril Thiandoum moo nekk ci wetu Djibril ndooy Diane mbeng euh, topp ci ak euh, Abdoulaye Ndiaye keroog euh, jeewul bi match c'était un des joueurs de champ kon kii moo di Olympique de Ngor di finale Coupe du Sénégal 1963 pour être complet dama leen indaaleel ñi nga xamee ni ñoom la ñu finaloon en 1963 di union sportive bu Dakar Niger. lu tax Dakar Niger booba temps raay bi dafa dem ba ñaame parce que booba temps raay bi dafa dem ba Niamey capitaine bi moo taxaw na la ci kaw. di Aw Richard il venait d'ailleurs souvent moom Aw Richard en équipe nationale très élégant libéro Moustapha Dugnon ci topp Moustapha Dugnon moom it daan na ñëw équipe nationale présélection nekkoon na fi sax arbitre international euh, ki ci wetu euh, euh, Moustapha Dugnon di Pape Diop ñu ko daan wax nag Diop Espoir moom it daan na ñëw en présélection équipe nationale Doudou Diaba moo topp ci wetu Diop Espoir Malick Diop moom it mi ngi woon ci présélection bi nga xamee ni moo doon Jeu de l'amitié 1963 Soumaré topp ci kii ngeen gis en survêtement te yore ballon bi moo di Habib Diall. qui venait lui aussi de Saint-Louis dëkk Lolo koñu koñu ko ñu Sa Majesté ah Habib di rakk ci Lamine jàll mi fi nekkoon euh, latéral gauche Saint-Louisienne Foyer nekkoon fi maire Liberté 6 moom Habib euh, Diall euh, ci gauche Habib Diall di mañang Soumaré yéen a ngi dégg léeg ñuy waxtaane benn stade du Thiès bi ñu tuddee que Maniang Soumaré Maniang Soumaré mii la ñu ko euh, euh, euh, tudde mu saa ci am ndeysaan lu daw sama yaram policier bu ma dajal ci circulation bi mu ni ma Maniang Soumaré mooy sama papa moom la ñu tuddee stade du Thiès bi ma ni que nag yàlla nga doon sa baay ñi jonkan à gauche accroupi di Mamadou Ndiaye délégué Mamadou Ndiaye dañ ko daan woo ci ñaari équipe nationale football ak basket mu mujj choisir basket parce que nee na il était sûr d'être titulaire bi mu arrêté d'ailleurs football ak basket nekk na fi arbitre euh, basket moom Mamadou Ndiaye euh, délégué ci wetam di wu baax Zal qui venait de Saint-Louis onze diables waaw dégg ngeen fi onze diables ñu nekkoon la réserve de l'espoir de Saint-Louis fa la Saliou Ba jógee joué fi équipe nationale moom tamit ci wetu Saliou Ba Mamadou Ndiaye Koppa keneen ku jóge ci onze diables yi ca Ndar Mamadou Ndiaye Kopa euh, très très très bon ce n'est pas pour rien le pseudonyme de Raymond Kopa lui est allé gannaaw Mamadou Ndiaye Kopa maam Fara Ndiaye moo nekk noonu Oumar euh, di Dibarou moo nekk nii jonkan ci seen droite Oumar di bayu ancien international il fut d'ailleurs capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal moom Barou tangu ñoom Souris tangu ñoom Lamine Koura tangu ñoom Cheikh Thioune il vit maintenant en France baru ku ko gisul dégg nga ay jalooreem kon kii moo di Union sportive du Dakar Niger parce que booba temps raay bi dafa dem ba ñame du turu équipe bi mu nekk ancêtre US Rail gagné coupe du Sénégal bi contre Ngor en 1963 léegi euh, ma jox leen photo bi nga xame ni ci le président Senghor doon remettre justement coupe bi à kon président Senghor ngeen gis ni ah mu takk euh, lunettes yi di jox Aw Richard euh, bi. élégant demi-centre à Richard. Vous avez ici en blanc Amadou Bari, gannaaw du Bari Joseph Gomis moo nekkoon nii Joseph Gomis à l'époque moo doon président fédération boobee ma leen di wan nag ci kaw boobee ma leen di wan ci kaw moo di Demba Diop à l'époque ministre des sports nous sommes en 1963 euh, bi mu fàttoo la ko Senghor tuddee stade bi Demba Diop nekkoon ministre des sports nous sommes ici en 1963 mu nekk la troisième finale de coupe du Sénégal tey jii on en compte plus de cinquante la troisième finale de coupe du Sénégal présidée par le président Senghor Senghor ba 66 les six premières finales de coupe du Sénégal moo ñëw présidé ko ba 64 Wakam COT ba 65 euh, COT Gorée ba 66 Saint-Louisienne Guété Club de Saint-Louis les six premières finales parce que booba temps comme on dit mi ngay asseoir la nation et ça passe aussi par le sport. Le président Senghor l'avait bien compris. Konbok, voilà les images de cette finale de 1963. Mamadou, dello silma, euh, dello silma olympique de Ngor. kon Konbok ma dello si waat ci olympique de Ngor ak Badara mi nekk ci plateau bi nekk nii ci digg bi moom mi waral tey jii jataay bi ci ñëwoon démb pour wan xaleelu Ngor yi nekk Coupe d'Afrique fi équipe bi jógee fii nous sommes en 1963 Ngor existait dix ans plus tôt. Badara Ndiaye ngi nii xaleelu ngor gis ngeen seeni maam ñoo leen jiitu ci néegu excellence parce que ci jamono finale coupe du Sénégal Senghor nji la daan dajal daje naag président Senghor. finale coupe du Sénégal mu nekk la troisième final Ngor nekk la première équipe de deuxième division bu finale coupe du Sénégal mais après yow presque sa carrière da nga ko taxañ bàyyi ko ndax da nga def diplomatie. yëg naa ni après tu t'es à l'ambassade du Sénégal en Guinée. en Guinée te Guinée ba nga demee footballuloo. non football naa rek dans le quartier mais nag ça ne me permettait pas ma football ci Afia ou bien et cetera et booba ku fa doon ambassadeur. booba bi ma bi may nekk Guinée booba euh, Bafa Gaye. Bafa bu Tëngéej. très bu Tëngéej. moo fa ne. après Bafa Gaye. la ñu ko rappelé indi ñu Lamine Diallo syndicaliste. Lamine jàlloo wax nga dëgg. après nag si la ma Ama Diaw. Ama jaw bu Saint-Louisien. waaw rejoindre à l' ambassade. comme secrétaire d' ambassade nekk nga fa ak moom. ah nekk naa fa ak moom. oui oui. waaw ah. kon gars ñi dem nañu de fusion bi nag. Ah. fekkuma fi. fan la fekk ah. alors fusion bi dafa fekk en parce que xam nga tout à l'heure mi ngi rafetlu Badara Ndiaye waxtu wu Ngor xewle waa Wakaam ñoo leen di jiitu ci préparation bi ak waa Yoff. wax na ko tout à bi ñuy joué coupe d'Afrique Ngor yoof dañ leen gunge ak wa Wakaam ak yoof dañ leen gunge ñoom waa Ngor ah, ñu demee fusion ñëpp kontaan ci parce que dañ ni Ngor Yoff Wakaam benn njaboot la woon yu nekk ci ñetti néeg bi ñu demee fusion di Almadi ñëpp kontaan ci final nañu sax dès 1970. Mhm. deux éditions jaraaf rëcc. première édition boobu parce que da Ngor euh, Almadi dafa raté penalty mhm. deuxième édition la leen jaraaf gagné. booba yow yaa nga Conakry di dégg fusion bi ban compréhension nga ci amoon gëmoon nga ni fusion bi lu war mën a taxaw la ci diggante Ngor Yoff Ouakam waaw xam nga euh, loo gis rek yaakaar lañ ci am bu bu taxawoon continuer taxaw hmm. réellement mooy suñu doole waaw parce que division hmm. day xajal rek ay nit wax nga dëgg Ndiaye foo dëgg division rek hmm. faiblesse moo fa nga dëgg Ndiaye kon tey jii moom laa jiital toujours pour dellu sewaat Ngor Wakaam Yoof mhm. ñu bokk équipe mhm. même équipe dina xale jafañ mais li ma si jiital rek mooy équipe bu Wakaam mooy équipe bu Ngor équipe Yoof mooy bu Ngor mhm. équipe Wakaam mooy équipe bu Ngor parce que même jamboot gi la même famille bi la wax nga waaw man bu may xale bu ma leen di conseiller tout le loolu laa leen di conseiller mhm. mooy ngor wakaam yoof dara xaju fi te tant que nag ñoo ngi ànd rek ñu am doole Abdoulaye Diouf saar la ministre du tourisme wane na ko bi ngeen di final il paraît que moo jëkk ci équipe bu ngor bi pour accompagner ko Abdoulaye Diouf Sarr ministre du tourisme waaw xam nga euh, euh, moom laay wax rek euh, moom suñu doom la waaw même bu nekkulee ministre sax suñu doom la parce que waa Ngor wax am na loo xam ne eh, ñu ñëpp ñoo ko bokk équipe bu ngoor mm-hmm. du ñun waa ngoor rek ñoo ko moom la commune dañ na commune ngoor Almadi commune Ngor Almadi moo tax suñu mbokk almadi yi. Mm-hmm. mais ci ngoor la ñu bokk. wax nga dëgg te nag léegi avantage bi xale yi am ci yéen euh, Badara Ndiaye. yow mi nekkoon attaquant wu Ngor dugal bi ca finalu 1963 contre USDN tey jii la Ngor nekk à parce que tey jii xale yi dañuy génn ci buntu kër gi dugg ci terrain bi di entraîner Ngor la ñuy recevoir mais yéen ca jamono daaw leen recevoir Ngor. non xam nga euh, loolu euh, avantage bu rëy la. waaye waay bu rëy kay. non seulement conditions yi ñu am ñoom léegi ñun amuñu ko. déedéet ñun bu am mas amuñu groupement déedéet dañu ku si nekk da ngay fanaan sa kër. léeg-léeg da daan añ ba pare sax soogaa dem regroupement. waaw añ sa kër ba pare bisu match ba. waaw ah. soog a dem regroupement. waaw ah. temps en temps même pour bu ñu xëyee match suba yu ñu daa def. Hmm. am na suñu benn yaay suñu benn maam boo xam ne moo ñu daa defal ndékki xam nga man comme Ndiaye laa sant. waaw ku bëgg ku farataal ndékki la. <laughs> yaa ngi yaa ngi laal njóobeen yi ah. ku farataal ndékki la. <laughs> Ndiaye wax nga ah, bu ñu daa ndékki dama daa wax maire bi en ah. général. comme ci meneur yi laa daa bokk. waaw buñ nañ ñu defal leen mburu mën na leen déedéet maire nañ nañ ñu defal fonde. mais bu ma commencé si fonde bi dañ may yëkki. pour ma mën a jog ñu ne waaw ma ne eh kuy football doo lekk doo doo lekk bu suur kon nag bàyyi leen moom la lekk bu suur pour revenir ah. ci condition yi nga xam ne moom la xale yi am à l'heure actuelle amuñu ko fan nga ne wax nga dëgg tu es dans un hôtel waaw tu es nourri mm-hmm. tu es logé en prime tu es branché en prime boole si boo footballee ba pare ah salaire la waaw te ñun boo gaañoo sax bu ëllëgee duma dem école est que aw ma ku ma faj wax nga dëgg kon nag avantage bi si ñoom la. wax nga dëgg li ma si yokk mooy am nañu terrain. wax nga dëgg ils sont à domicile léegi. ils sont à domicile. terrain boobu léegi am nañ temps euh, ci fan yi passé rek. am nañu problème parce que mënatuñu recevoir à domicile. ndax dañ koy liggéey ah. non parce que dañ na terrain bi kenn gazonné wu ko. ah pour ah, ah pour l'Afrique pour Afrique. kenn non non même en championnat. ça fait deux semaines yoo ah, deux. deux léegi Ngor dootu recevoir. dootu ñu recevoir parce que gazonné wuñ ko. parce que gazonné gazonné wuñ ko. ah yow li coow la ah. kon nag banque kon yaakaar naa ne. même en championnat du Sénégal en championnat. dañ leen tere recevoir dañ tere ah. kon nag am na loo xam ne ñii ñu ci war a dimbali. Uh-huh. du mën a Moussa du mën a Demba war nañ ci war a mën a dimbali. parce que à un moment donné la mairie. waxoon nañ ne dinañ gazonné lu ma dix ou quinze terrain waaw boobu ba léegi on attend uh-huh. l' état le ministre des sports waxoon na na terrain bi dinañ ko gazonné boobu ba léegi on attend ah. yaakaar naa ne bu ñu amee infrastructure yu mel nii gazonné ko ñuy recevoir yaakaar naa ne aussi si loo xam ne wax na mën a ne. championnat bi bi muy door recevoir ngeen fa. recevoir nañ ko ah, mais ça fait à peu près deux deux deux deux deux. deux deux deux journées. deux journées ou trois journées yoo xam ne on ne reçoit ah, plus encore. parce que nag championnat ni ñu ko dooree nga koy jeexalee. nga koy jeexalee noonu lañ leen bàyyi ba saison bi tëj. ba saison bi tëj waaw su ngeen amul gazon. waaw ah. kenn dootu fi recevoir. mais mënuloo bàyyi door fa championnat ba. ci diggu championnat da ngeen ko dootoo fa recevoir. dootoo fa recevoir kooku presque beneen recommencement